xamante ni moom laa lay jox rek mooy bu mu la encouragé ñaanal la fi nga nekk nga am fi ndam ndax li nga yor mooy Sénégal ndax jàpp naa ni boo yoree PUDC Primoville bourse sécurité familiale ah couverture euh, maladie universelle loolu mooy réew mi c'est-à-dire réew mi nag boo ko yoree jàpp naa ni il faut que nga xam ne réew mi ñun ñëpp si leen bokk si euh, buñ continuation en tout cas li ma lay xamal rek mooy dinaa si jël ñaari programme yoo xam ni ci sama xalaat sama sama xalaat man wax dëgg yàlla méngoo wut ak bés bi la jox ndax biir sécurité familiale ak couverture universelle ñoom ñaar kese jël na cent milliards kon yaakaar naa ne bés bi moom pour que nga mën a àggalee li nga xamante ni mooy programme bi la jox bés bi tuuti na si loolu moom loolu moom il faut que ma wax ko malgré que bokkuma yow kii waaye nag il faut mu wax ko ndax comme bu doxee réew mi la il faut que ministre des finances ñu xam ni ñaari programme yooyu doo nga mën na 100 milliards muy bourse secret il faut que ngeen augmenter ko jàppale ko aussi tamit mu am yéene bi nga xam moom la am pour que mën nga àggale li ñu mooy monsieur le ministre dinaa dugg si sa ministère bi nga xam ne dafa def équité maanaam équité territoriale équité territoriale boobu nag man gisagul suñu bopp ñu département Mbacké ndax fi may wax ak yow Touba PDC numéro 1 amuñu ko PDC numéro 2 dañoo tëb kon jàpp naa ni il faut que ngeen def li nga xamante ni tey mooy programme bi ngeen def pour ma ville ak PDC bi ñu man see gis suñu bopp si département bi ndax boo jëlee dëkk mel ni Doyoli Daaru Xafoor Dendey dëkk yooyu dafa nekk dëkk yu am solo ay dëkk kilifa diine yeen te fi may wax yow ni ba léegi nii amagul dara loo xamante ni lu bees la ci mbir moomu noonu li naan écoute sociale tamit dinaa si wax ndax ma jàpp naa ne ñun ay député lañ sëñ Tuubaa jur suñu maam ki nga xam moo yore mbirum ceeb bi si màggalu Tuubaa gi def na fa jëf ju ñaaw ndax mënuma concevoir ñu nekk ay député bokk ci njaboot gi ne Dakar lañ dëkk day jox 5 tonnes ko 3 tonnes ñuy jox ñeent saako ceeb loolu teguñ ko fenn kon écoute sociale dëgg te boo ko wooyee mënoo bu ma woowati Mansour Faye moo yor yëf yi kon il faut que loolu tamit ngeen wax ko ñun ñun malgré que ñun bokkul parti ak yéen mais ci réew mi la bokk ndax milliards yooyu ñu ko liggéey suñuy lemp la ndaj pour ne moo laa leen aussi na ko ndax écoute sociale boobu ba ci benn waay taxaw ni fii barki dem ni dañoo dañoo jox député yi gerte mais kooku dafa saaga député yi te moom mi wax jox nañ ko 500 tonnes gerte jox ko maanaam 3000 tonnes engrais jox ko ñebe 600 tonnes wutaru un milliard te kenn waxu ko te tey jii bi mu ñëwee war a dis discours Farba Ngom Garaas moo tax woo moom deful discours bi mu waroon def kon kooku il faut que ñu wax ko xam ne équité sociale boobu noonu ñu leeral askan wi fan lañ sukkandiku ba loolu ñu ko jox ko ko ndax man mii di wax a yow bëgg na agrément am naa xaalis bëgg naa joxe jiw te mun maa joxe jiw ngeen yëkkati wala wutoon na ngeen jox ko pour mu joxe jiw kon il faut que ñu xoolaa loolu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk bu fekkee da dem laaj quatre quatre cent ministre agriculture nangu wulaa jox nga taxaw di ko xas kooku man teguñu ko fenn ndax ñun ay député lan waruñoo def pour santas waruñoo def pour kii te règlement intérieur article 101 dafa tere député ñu la jox marché daf ko tere ndax conflit d'intérêt la il faut que loolu tamit ñu mën ko xam mais koo xamante ni jànguloo ko xamuloo ko da yor maanaam sa kii yor sa grand mbubu dem di xas ministre yi wala nga dem ngir leen santas ngir lan ñu jox la 500 suba la ko yaa bay wax ni am na ba pare mi ngi mi ngi il faut que ñu leeral askan wi xam ne li ngeen di yor affaire moomu ko réew mi ñoom ñoo ko moom il faut que ñëpp bokk ci yem man Sénégal laa keneen bonne continuation yoon baa ngi noonu bul gestu te nanga nangoo liggéey te di nit ñi te ñoom ñu ngi lay félicité nga nekk si vous remercie